yéen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da di abonné ci As-Samadiyya yi waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen man cee jot. waaw ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp di ñaanal suñu sëriñ Cheikh Bassirou Mbacké ibn Sëriñ Abdou Khadre suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ay cëram te kàttanal ko te musal ko ci mbéppum ndox xam naa waxtu wi dafa xat dañuy njëkkanteeg waxtu wi rek euh, sëriñ bi ñëpp xam nañ ne dañoo jëm ci bis boo xam ne dafa sori ci moom lool muy ñetti fanu tam tamxarit di bis bi nga xam ne ci la ñuy màggalee li nga xam ne mooy màggalu sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke di bis bu am solo tamit ci ñun kon mu mel ne bu ci sàkkee jot ju mel nii may ñu ko day wane rek ne liggéey bi ñuy def yitteel na ko kon dañuy jëkk rek di wax ne ndaje mi li ko waral at mu jot dañ koy def su màggal gi desee ñaari fan muy centre de recherche et d'essai bi nga xam ne mooy centre de recherche et d'essai bu Soxna Daba Bousso ñu ubbi woon ko 2014 ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation ñoo ko bi woon ci ndigalu Cheikh Bachirou Mbacke am na sëñ Abdou Khadir keroog bi mu gisee projet bi gis ne projet la boo xam ne dafa am impact ci population Touba bi mu def ci yitte jox ñu local boo xam ne ci investissement personnel la defal ñu ko ministre bi ñoo installé ñu ko li ci war a dem yëpp moom mu def ko ba tey depuis booba ak léegi centre bi di def ay formation yu am solo mbooloo mi ñuy gis nag mooy promotion bu mujj bi ndax ñoom yëg gi ñu yëg ne liggéey bi amal na leen solo lool loolu tax na at mu jot su waxtu wi jotee ñu dàq waxtu wi ngir ñëw fi siyaare sëriñ bi wan ko séen ab liggéey waaye sant ko ci lu am solo lii mu leen defal ndax jàng day loo xam ne ku la ko yombalal rek amoo fayam rawatina nag xarale yu bees yi nga xam ne nit ñee ngi de nit ñee ngi ciy fay ay millions ay millions loolu yaakaar naa ñii di liggéey ci nouvelle technologie yi xam nañ li may wax formation boo jàpp ne euh, TIC yi mooy technologie de l'information et de la communication yi boo ci xalaat rek ñu ngi koy defee fii ci centre bi te lépp gratuité la maanaam amul joxe dara dara dara dara lépp gratuite la nga xam ne 2014 ba léegi formé nañ ci 8345 nga xam ne diggante 2023 ak 2024 625 dolleeku nañ ci kon daaw bi ñuy taxaw di def bis bi ñu ngi tolloon ci 7000 ak kel ren ñu ngi toll ci 8345 ñoo xam ne formé nañ ci ci diggante bureautique informatique maintenance assemblage réseau informatique programmation visuelle infographie management leadership entrepreneuriat transformation agroalimentaire saponification javellisation donc transformation yi moom li ñuy wax ne euh, weddi gis bokku ji ñu ngi ko présenté fee mu nekk ay xeet yu bëree bëree bëri yoo xam ne soxna yi si diggante ñetti fan yi lañ ko defar ci njiitul ku ñuy wax Sophie muy directrice su CREA bu Pout nekk fa formatrice ndax lii saa yu amee tamit dañuy xool ci yeneen CREA yi ndax CREA yi ñaar fukk la fi ak ñeent ci Sénégal yëpp kon bu sëriñ bi jëlee liggéey bu mel nii indi ko fi ñu gis njëriñ li muy def ci dëkk bi ndax tey su fekkoon ne ñi fi jaar boobaak léegi ñëpp teew nañ yaakaar naa fii kenn du fi waaye dañuy def at mu jot promotion bu mujj nga xam ne su at mi tàmbaliwaatee promotion bii mooy ñi nga xam ne bu ñu bu ñu paree ci lii kenn ku ci ne dinañ la jox sa attestation buy wane ne formé nañ la ci domaine bu précis boo xam ne attestation boobu mooy wane ne lii ñu la defal wax dëgg fa yàlla capable nga pour def ko te yaakaar naa ci dëkk bi am nañu ñu ci bëri ñoo xam ne. xale yi buñ génnee fii dañ leen di mën a jàppale ci seen wàllu comptabilité ñi di leen jàppale ci côté infographie ñi di leen jàppale ci côté yu bëree bëree bëree bëree bëri ba ci multimédia rek ci ci tënk kon muy àdduna boo xam ne lii mënu fee ñàkk te centre bi aussi fexe na ba participer ci euh, informatisation daaree kaamil ci taxawaayu monsieur Diatta ak université bu yi waaye lépp ci euh, taxawaayu Cheikh Bachirou Mbacke ibn Cheikh Abdou Khadre ñu ànd ceeg sëñ Moustapha Diatara liggéey ci liggéey bu am solo centre bi nag di ubbi loxo moo tax tey ñuy organiser lu ñu tuddee journée porte ouverte mooy journée boo xam ne dañuy bëgg dëkk bi gën a xam lan mooy centre bi gën fee ñëw gën cee jëriñu ndax mu am taasir te commencé ko ne commencé na ko cee am sax ndax dañuy former sax ay professionnels yaakaar naa seminaire bu ñu fi mëjjee def ay directeur d'école la ñu leen di defal lu jëm ci wàllu management ak leadership mooy nu ñuy jiitee aw nit ndax jiite dafa mës a jafe rawatina ci jamono jii nga xam ne jamono mondialisation la jamono technologie la jamono jamono jamono yu bëri dafay changé ci ñi ngay jiite comme am xam-xamu njiit ci ñi nga xam ne ñoo ngay jiite loolu dafay doon làmp ci yow ndax dafay soxla nga am ay alaat mooy ay outils am ay technique am ay compétence yoo xam ne mooy tax li nga bëgg nga mën koo def comme centre bi ñëpp a ngi ciy bénéficié wu ba ci sëriñu daara yi moo tax ñu ngi gën a soññ xale yi ñu gën a fonkaat centre bi gën koo jàpp fi nekk nii am nañ 300 personnes yoo xam ne dañoo inscrire nekk liste d'attente te amaguñ ndax machine yi tamit dafa manqué moo tax ñoom it xam naa buñ jëlee kàddu dinañ ci gën a ñëw wax sëriñ bi jàppale na leen ci ñaanal leen ci ñu xoolit nan la ñuy fexee ba mu gën a yaatu ndax ñoom it bëgg nañ centre bi lool lool tey fi ñuy tëjee rek mooy dañuy sant ñi nga xam ne mooy euh, ministre de l'enseignement supérieur docteur Abdourahmane Diouf ak madame Ndeye Yacine Gueye di daaju ministre bi ak suñu coordonnateur monsieur Toumani Doumbouya ak monsieur le maire Abdoulaye Ka euh, di remercier bu baax tamit gestionnaire bi muy Youssouf Der jaata di jàmbaar ci liggéey bi ak formateur yi Mourtala Lo ak secrétaire Kadia Sow ñoom tamit ay assistante lañ nekk ci biir centre bi wax nañ ko ak Sophie nekk directrice CREPOUT moom moo doon formé xale yi jigéen ñi ci transformation yi xam naa sëriñ bi buy wàcc dina ko xool ñaanalaale leen kon su ko defee ñuy santaat bu baax tamit Babacar Sadikh Diop moom tamit nekk gestionnaire bu Bambey mais chaque année day ñëw tamit jàngal xale yi li jëm ci wàllu maintenance pour defar leen renforcement de capacité ñuy sant tamit ñaari monsieur Diédiou yi nga xam ne ñoom ay représentants lañ ci programme école entreprise ñoom tamit xam naa dinañ gën ci suba def nañ ay euh, sensibilisation ci élèves yi ndax liggéey bu am solo la ñuy def waaye aussi di sant seen Cheikh Fall coordonnateur des enseignants et directeurs de Touba et environ kon daal ci tënk loolu moo nekkoon présentation bi ñu doon def su ko defee ñu jox seen président mu wax tënk rek su ko defee ñu jox sëriñ bi kàddu mu ñaanal ñu ndax li koy xaar dafa bëri. mbokki jullit yi mbokki taalibe bi ñu ngi leen di nuyu di yëpp jullit ak murit ba ñu nuyoo sëriñ bi di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te ànd ak wér balaa ñoo yëkkati suñu kàddu dañ koy sàkku ci sëriñ bi. ak mbooloo mi fi daje yëpp suñu way dawli yi nga xamante ni ñun ak ñoom bokkoon nañu liggéey bi donc ànd ak ñoom ñun ñu ciy jàppale ñu wuyu ci borom ci anam bi ci borom bëggee ki ñu suñu kilifa sëriñ Alaaji Bousso bokkoon ci ki nga xamante ni centre bi da soxla woon loolu mu jël taxaw taxaw bu am solo te taxawaay bi mate na ko ak sëriñ euh, Moustapha Anne. ak membres yi nga xamante ni ñi ngoon ci centre bi doon fi jàngee ñu bëgg balaa ñu tàmbali liggéey bi ñu ñaanal leen suñu borom yé jéggal leen te yërëm leen te xaar leen fi doos yi bàkki alxuraan la xasida yi kon temps yi dafa def ñaan yoon bi ak yi ñoom ba ñu nuyoo sang bi tedd bi sëñ bi siiru mbàkki indi sëñ Abdou mbàkki ñu ngi lay nga yàgg fi loolu te ànd ak wér duñu jóg mukk ci ñaanal la dañu jóg ci mukk ci topp la dañu jóg mukk ci bëgg la ndax danga def ci ñun loo xamante ni njortoon nañ da di dund ba wuy ji te xam-xam boobu du nekk ci ñun ndax centre bi Touba yàgg na fi lool mais bi fi ñëwee yow yaa ko fi te jox ko njortoon nañ ni soo téewoon sa loxo comme ni ñëpp defee njort nañ centre bi du ñëw ndax centre bi ci sa tur la ñëwee ci sa kër la nekk yaa yor ña fa nekk formé ña fa nekk tey insisté ci dongo yi nga xamante ni ñoo nekk biir Touba doon ay ndaw jàng alxuraan ba wàcc ko ñëw defar formation informatique te bu njëkk njortoon nañ ne informatique dongo daara bokku ci te tey dongo yi ñoo ci gëna a bénéfice wu fii ci Touba te centre bi nii muy doxee wa na ni Touba lu am cër la ci dëkk bi ndax bi mu ñëwee ci Touba sat yi nga xamante ni moom la Touba di doxee moom la centre bi doxee par rapport yeneen centre yi nga xamante ni bokk naa ak ñoom te liggéey boobu it moom moo ko liggéey ndax wàllum état dafa am programme mais sang bi dimbali ñu ba ñi nga xamante ni ay taalibe lañ centre bi di ñu jàngal te di ñu yar Mbàkke ñu ngi amaat mbégte bu baax di feddalaat suñu kóllëre ak yow te di la ñaanal bu baax suñu borom yàggal la ndax centre bi bi ñu tàmbalee ba léegi ren mooy dixième édition 2014 ba 2024 kon loolu fukki at yàgg na mosoo tàyyi benn yoon te mosoo sonn benn yoon. saa yu la santé bi soxlaa Mbàkke dañ lay gis nga ñuy jàppale ci lépp ba dem nañ sax ñun ba léegi ñi nga xamante ni ñoo say say say say taalibe doon say nit doon say xarit doon say soppe pare pour engagé wu pour jàppale centre bi mën naa ci lim Serigne Djili Niang kenn Serigne Touba moom depuis la dégg centre bi programme bi nga xam ne am na ko muy machine yi fa manqué muy taabal yi fa manqué muy yenn yi fa manqué yëpp mu pare pour jàppale pour centre bi ngir sa jëm ndax bëgg la rek ndax say njiri engagé wu noonu pour jàppale centre bi te am na ci yeneen i membre yoo xamante ni ñu ci biir centre bi doon say nit doon say taalibe bëgg la loolu Mbàkke ba lépp loo xamante ni sa ndam la dañuy bëgg mu kawe ca kaw te incha allahu rabbi Mbàkke lépp loo teg sa loxo ci kàttanu suñ borom dana jëm ca kaw euh, ñoo ngi santaat bu baax monsieur Diatta euh, ndax moom ba mu ñëwee centre bi ñu nekkee ci centre bi léegi moom lañ fi xam te moom lañ fi fekki te mi ngi ñuy jàngal jàngal boo xamante ne ànd na yar ndax dañuy yar ba noppi di jàngal ndax bari na ci loo xamante ni centre bi ëmb ko mais moom mi ngi dem du ko indi muy formation yi nga xamante ni sëñ Xaadim Mbakke sëñ Xaadim dudd na ko léegi muy centre yoo xamante ne xale yi def nañ ko ci une te liggéey boobu tey moom moo ko def te su ko neexoon su toogoon ne man damay jàngale rek ja njortu naa formation yooyu xale yi duñ ko xam mais moom moo ko def xëj ay nitam woo ay nitam ñëw pour xale yi seen xam gën a yokk Mbàkke Moussa Diatta mi ñaanal ñu ko santal ñu ko mook Kaja Sow ak euh, sëñ Moutala Lo ak sëñ Ousseynou Boussane mi nga xamante ni dem na moom ñoo ngi koy ñaanal suñu borom fa mu nekk dafa gën a tawfeex ndax bari na ci xale yoo xamante ni xam-xam bi nekk ci moom moom moo ko def ci ñoom kon Mbàkke suñu kaddu tey moom du kaddu lu kaddu sant ak gërëm ndax bëgg-bëgg yi amoon muy ay machine bëgg-bëgg yi amoon muy ay table bëgg-bëgg yi amoon muy yokk suñu formateur bëgg-bëgg yi amoon mooy yokk suñuy euh, yokk suñuy euh, xam-xam ci biir centre bii fe bañ la ko waxee Mbàkke ajuma bii jàll rek ci mujj sànq bi ma ñëwee di la nuyu wax nga ma ko na ma incha allah jox naa ko koo xamante ni mi ngi koy saytu ci kàttanu yàlla balaa yàgg dara lépp li nga xamante ni centre bi soxla woon na ko sëriñ bi nee na dina ci ci kàttanu yàlla ko bu baaxam kon Mbàkke ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi loolu te ànd ak wér suñu kàtt nag mënul gudd ndax cant cant rek la lépp ak bëgg la ak wóolu la ak doylo la ak yaakaar la rek Mbàkke la ñu am yàlla sa taxawaay yàgg barki alxuraan na xasida yi jërëjëfati Serigne Touba jërëjëfati Serigne Touba waaleykum salaam wa rahmatullah taala wa barakaatuhu. wax na woon nañu ko 2014 te jubluñ ca dara lu may liggéeyal ko Serigne Touba ndax dëkk bi moom Serigne Touba moo ko ñaan suñu borom suñu borom bay ko ko. mu waxit ne waddu laha al xayra min al jihaati as sitti wa fiha an al afati wa risqaha ci al atir al xalaali fi l usri wal yusri ala tawali wax ko fu bëree bëri kon ku ne dangay jéem rek lu ne sa xalaat loo jàpp ne war naa amal njëriñ dëkk bi nga def ko loolu képp nañ ci jublu moo tax pàcc bi nga xam ne moom la nekkoon kër la woon ma jënd ko bëgg def këru gan waaye bu defee xalaat bi dikkal ma ma topp ko ba mu sotti ba def ko addi Sëriñ Tuubaa dina xam ne yëpp Sëriñ Tuubaa kon ñu ngi ñaan mboolem koo xam ne jaar nga fi ndax lii dafa bokk ci bi suñ borom santaane mooy di jéem a góorgóorlu ci liggéey ndax liggéey dafa bokk ci jaamu yàlla ndax bokkoon na ci li tax nit ki diineem am ngorom mën a ñoom kon loolu fu àdduna toll rek lépp luñ ci mën ñëpp ci war a jàpp ngir jàppalee ko ñu dëkk ci dëkk bi ngir xam ne Sëñ Tuubaa fàggul fi lépp kon nag ku ne war ngaa ñaan bokk ci ña ñaanoog Sëñ Tuubaa du nangoo jëw loolu képp di jublu waaye amul leer luñ ci sàkk lu weesu loolu te Sëñ Tuubaa kasbul xalaali bari na lool fu mu koy bindee fu mu koy bindee ci ay ci ay mbindam kasbul xalaali mooy sàkku lu lew ndax jaamu yàlla sa balaa yóbbu ci nit ki faw nit ki day jëfandikoo lu lew kon nag comme àdduna noonu la baaxoo kii day nekk ab baykat kii nekk commerçant kii nekk kuy liggéey ci jëneen fànn mooy tax kenn ku ne di mën a jëriñ sa morom li yettaxisa baaduhum baadan suxriyan kon ñu ñaanal mboolem koo xam ne ñu ngi ngir sàkku xam-xam boobu yàlla na suñu borom barkeel sa xam-xam naa xam-xam baax na waaye xam-xam boobu njëriñ di am boo demee ci masaaru jaay ba na ko Sëriñ Tuubaa di tudd ba am na fu misaal di wax ne inna si lam yaxsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afnal funun nee na ci bari xam-xam te xam-xamu àndut ak ragal yàlla boobu du xam-xam boobu njëriñ kon xam-xam bi ci ëpp solo mooy bëri bi lay jëriñ ci sa adduna waaye li ëpp solo mooy jëriñ ci sa àll sa ëllëg luy ñoŋal sa àllaaxira di sa kon ñu leen ci soñ bu baax dafa ko yéene gën a ànd ak yéen ci yéene ji nga xam ne am ngeen ko ci ci liggéey bi di ñaan ci barke Serigne Touba yàlla Serigne Touba gën leen a gàttandu gàttandu leen ci liggéey mi defal leen ci dimbali tawféex ba ku ci jóge ku ne nga am barke barke bi topp la loolu tam kat fàggu ci rafet nañ ci jot ndax Tuubaa moom suñu Tuubaa fàggu na fi lépp ñaan na fi lépp ba suñu borom nangu na ko kon li ci des lépp lu waaye lu ci mu ci waaye def te sell ko ànd ci posté foofu boobu suñu borom ci gën a dimbali gën la ci bu baax a baax te ngeen xam ne lii itam bokk na ci li war nit ki ci am réewam mooy kenn ku ne xam ne la euh, lay lay tax sa àdduna defaroo sa àllaaxeer defaroo loola dees na la tëj ci yoon waaye loolu warteefu nit ki la ci boppam kon kenn ku ne ndegam yàlla def ni jaar ñëpp ay ndaw lañ kon li may li faral di wax rek yoonu murit yoonu xam-xam ak liggéey la ñu nangoo sonn lañ euh, sëñ bi fàgguñ leen ko ba mu ñëw kon boo xoolee ñii fi nekk rek nga xam ne kon dëkk bi soxla na lu mel nii ndax nit bu amul formation pour commerce rek la def wala mu bay te mbay mi bu ànd ak formation lañ ca war a xam doo ko ca xam kon lii itam ñëpp la war ci yàlla defal kattan nga mën ko rek nga def ko ngir jëm ko dugale sa loxo ci liggéey ko Serigne Touba ca ndaw yi ci dëkk bi ndax dëkk bi Touba. dëkk la boo xam ne waxuma ñi jógee ci seen dëkk di fa tuxu si waaye at bu jot ñiy déclaré di judd rek dem nañ ci juróom fukki junni nit juróom fukki junni nit nag fu ñu juddu at bu jot booleel la fa nekkoon ak liy tuxu si waat bàyyi ko seen dëkk ñëw fi loolu bu àndut ak la mu war a ànd rek bu yàggee dana jur musiba mu métti métti moo tax kon loolu itam dañu xam ne responsabilité yëpp la lépp lu ci waaye mën def war nga ko jël te xam yoonu murit lii seen bàkk bi gën a baax mooy lu mu doon rek dañ koy song ku ñuy fekk si leen ci loolu yoon noonu la baaxoo def kon loolu dañ nekk ci gën a song bu baax ñu gën koo def seen yitte te xam ne fu yoon wi àgg rek loolu ko fa àgg rek kon itam lu ya lu la yàlla defal tawféex bokk ñu bokk Sëriñ Tuubaa amul kenn koo xam ne mën nga koo fay sëriñ bi yaakaar gi nga ko yaakaar rek lay wax boobu moo bokkul deret ndax sëñ bi la cee jariñe mooy posté bi ak gëm gi dëggu gi jëm ci moom waaye kon ñu ngi soñ ñëpp leen ci ñaax te leen ci ñaaral ci barkeb Sëriñ Tuubaa yàlla suñu borom gàttandu leen ci defal leen ci libéré tawfiq te ko fa jugee rek mu amul yokkute ci boppam xam-xam bu fi waaye jàngate yàlla barkeel kon suñu xaalis ñu ngi sant bu baax yéen ñi nga xam ne yéen lañ tegoon liggéey ci seen loxo ngeen àndoon ko suñu fànn bu bu mu wàccee itam ngeen wéy liggéey bi ñu ngi leen ciy ak suñu jaate bi nga xam ne moom ngeen ko àndal ak ak bu bokk taari bi yëpp ci yitteeg pastéef bi ñu ci am ngay tudd gi ñu ci tudd Sëriñ moo tax ñu am ci yitte ak am ci yaakaar yaakaar yaakaar ji rek suñu saa yi daan wax ne yaakaar ju tas miinu yoonu kër Sëriñ Tuubaa kon nag na ngeen ci rafet jot bu baax te xam ne